mbokk parieurs yi at bu bees ak ay xewal yu yees Lonase ñëwati indil leen spécial promo PMU du 23 au 27 janvier ci ALR bi 15 millions bu jot waaye yemuñu foofu 1 million ci PLR bi ba tey bés bu jot du 23 au 27 janvier ak Lonase ay xewali neen jaaraama Lonase koom yi nag koomul fukket ak juróom-ñett mënu cee bokk